donc ñun association bi dañu ne loolu dafa war a arrêté mu jeex dañuy delloo seeni i parcelles ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo ñoom ñoo ko moom te titre yooyu ñu bàyyi ko parce que titre yooyu ñun ñii association bi membre association bi di bureau bi ba léegi ma nañu gisuñu si dara loo xamante nii wóor nañu ni titre bii kat diw lañ ko jagleel ba mu koy jaay donc ñun loolu la ñuy xeex tey moom la ñuy xeex suba moom la ñuy xeex gannaaw suba titre yooyu daal ñu fexe ba dindi ko fi ba delloo seen borom seen i parcelles point bi si gën a euh, bi si gën mag yi ci des tamit xeexoon nañ ko si ben moy que ni maire euh, préfet dafa defoon arrêté préfectoral pour tout site site bi yëpp pour kenn bañ fee tabax lolu tamit am loo xamanteni dindi ko ci dina def na un arrêté pour une levée partielle manam bind na yenn yenn parties yi dindi na ko pour gaay mëna tabax lolu d'accord remercie ñu ko ci remercier waye ba légui doyul ba légui doyul parce que ba légui amna ay ñoo xamanteni ñu ngi fii levée ñu seen euh, arrêté boobu pour ñu mëna tabax muy 153 parcelles yoo xamante ni mu ngi si titre bu ñaari titre yooyu ñooñu tey mënuñoo tabax parce que ba léegi arrêté bi dindigul partie boobu ñun tamit li ñuy ñaan mooy partie boobu euh, euh, préfet bi defar arrêté am dindi parcelle euh, kii nu mu tëddee arrêté préfectoral boobu dindi partie yi des soo ko defee site bi yëpp ñëpp dañu mën a construire si jaam ak salaam loolu tamit ñu ngi koy demandé préfet di ko demandé autorités yi. pour que arrêter préfectoral bi nga xamanteni mom mo dess ci parti litigieux yeeg parti parcelles yële ñu lever ko ñin ñi mëna tabax seeni tabax donc lolu mo nekkoon tamit euh, deuxième point ñetteel ba moy bi nga xamanteni moy euh, agerout moy tali bi ngeen gis ni amna biñ koy tabax xeyna amna am ay parcelles hein mais malheureusement euh tali bi jaar na fi té booba légui tamit ñooñu ken fayu leen seeni droit wa waa sim tamit jëlee jël fa ay ci ginnaaw nële jël fa aussi ay parce que projet Ablaye Wade woon bien sûr mais bobu léegi aussi soog sim fayu len te jël na fa ay terrain loolu tamit xéxu association bi la xéxu bureau bi la donc euh, boobu moo nekkoon euh, troisième point benen point bi moy espace vert amna fi ay espace vert yu bëri am fi ay mosquée am fi aussi ay euh, poste de santé boo la koy seetlu sa poste de santé bi buñ fa démé ni di nga fekk am ku fay tabax te du yoon parce que poste de santé lañ ko lañ ko jagleel won espace vert bi nekk ci ginaaw ni